bisu màggalu Daarul Moxti nga xam ne mooy euh, màggal daje bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul amoon ak rakkam ju tedd ji euh, maam Thierno Ibra Fati keroog bi nga xamee ne jóge na ca tukki bu yàgg ba xam ngeen ne bi muy dem Gabon tubaab bi di ko fa yóbbu sëriñ Touba maam Thierno Birahim Mbacke la dénkoon njaboot gi ay doomi boppam ñi nga xam ne booba ñoo ci gënoon nekk mag waaye tamit Serigne tubaa borom Daaru Muxti la dénkoon yoon wi bi muy dem di wuy ji tubaab bi bi ko tubaab bi di yóbbu Gabon mu def fa juróom-ñaari at ak lu topp bim ñibbisee Sénégal mu woolu borom Daaru moxti ngir borom Daaru Muxti ñëw giseek ak moom nuyoo ak moom ziyaarante moom defal ko compte rendu mu ko wooye woon fukki fan ak juróom ci wéru baraxlu wala shahban mom lañuy magal tay mu nek ndaje bu nga xam ndaje contre rendu la ndaje mbekté la digënté ñaari yi yalla yoy muy Serigne Touba ak borom daru Moxti lolu moy solos euh, bis bi nga xam euh, ñu koy ñu ngi koy màggal fii mu euh, événement bu nga ne magal Touba japp nañ ne moy ndaje mi gëna ci yoonu Serigne Touba bi ndax comme ni ngeen ko xamé darul ci population ci walu koom deuxième capitale du du mouridisme. mbecté rek ak fierté te di bëgg tout tànk yi ndaw ñi ñu melni ñun euh ñu def borom Daaru royu kay ndax borom dar Moxti borom fulla la borom fayda borom fit kat la tamit kon jikko yooyu nga xam ne borom Darou Mouhty làmboo na ko bis yu mel nii euh, buñ ko dee def du rek euh, wane suñu mbégte ci añ yeeg reer yi waaye tamit ñu xool ki ñu defal bis bi jikko yi nga xam ne amoon na ko ñun ndaw ñi ñun sénégalais yi ñu jéem ci roy ndax borom Darou Mouhty demoon na ba bokk ci euh, baykat yi gën a mag ci ci ci Sénégal wala sax ci Afrique soowu jant dama dem ba nga xam su dundu daan manki mom la solliciter pour mu jappali nit ñi ci ci dundu ku mel non nak bu la ko yàlla Serigne Touba bindal bopam ne borom Daaru Muxti moy sama përëgu ndey jor touba bi bind ci ay archive ne il était considéré comme le lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba euh, ku mel non bu la ko yàlla mayee ñuy def bisam nga bokk ci njaboot gi bokk ci taalibe yi ah, doo yëg lu dul mbégte ak ak fierté. ñoo ngi sant bu baax président Macky Sall ndax président Macky Sall su ko neexoon mu ne ah man kat damay dem dal di sëgg mais defu ko. mboolem lu nga xam ne waroon na ko digganteem ak dëkk bi digganteem ak kilifa diine yi président Macky Sall da ko matal ba àgg fa nga xam ne sax daaw fa egg. Manam limu jëf ren ci màggalu darul Moxti amul benn édition bu nga xamné ne jëf na lu toll noonu kon nak limi wone limi wone moy mom bu daan def doon na ci ne da wara def en tant que chef d'état waye tamit da na ci jiital ne da wara japp ngir yalla té loolu le président Macky Sall wane ci magal gi euh, gouvernement bi tamit mbollem li nga xamné moy taxawayam comité d'organisation bi Serigne Bassirou abdou khodous Euh, euh, jiite ko ci ndigalu Serigne Bassirou Anta Niang mi nga xam ne mooy xalifa borom daar Mouhty ñu def seeni i CLD def seeni i CDD def seen i CRD ànd koog sous-préfet préfet ak gouverneur ñoom itamit service de l'État yi lépp li nga xam ne digga euh, digge woon nañ ko ak bis bi def nañ ci seen kemtalaay kattan ba démb bi ma toogeek ak président commission d'organisation bi Serigne Bassirou Abdou Khoudoss mu ñu koy wax. ne même ndox mi nga xam mom lañu wax dafa xawa manki liñ ci def ci effort daawuñu ko def kon nak état bi président euh, Macky Sall euh, li leen waroon yeb taxaw nañ ko ci bis bi nga xam moy bisu maam Thierno Ibrahim Mbacke ndamal Daaru